Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wa barakatuh. Yen sama mbok julit yi ak fu ngeen meuna nek ci kaw suuf Ma ngi len di nuyu ne yen wa groupe bi di la ñaanal di sakku seen ñaan di ñaan suñu borom. Yen ko gi mat ci jamm. guddig tey gi nag mooy guddig laylatul qadar ci nit ñi mujjoon a woor guddig ñaar fukki ak juróom-ñaar mooy tey ci ñi mujjoon a woor kon tey mooy laylatul qadar yi boo defee ñu bàyyi ko xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag bu ko dee Aysa laajee guddig lu ma ciy wax daf ko na waxal ni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni amul limite loolu la ko waxoon ndax Iisa moo ko laaj ko guddi gii moo gën junne weer kon lu ma ciy wax mu ne ko waxal ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni waxal loolu rek اللهم إنك عفو تهيب العفو فاعف عني لا تبان